dal leen ak jàmm mbokku internet yu Senfootball TV nuyu naa leen bu baax ziar leen di am mbégte saa su ne defal leen vidéo mbokk yi euh, damay ñëw juste wax si Sadio Mané li mu wax tey euh, franchement réaction bu xamante ne doon nañ ko xaar def na ko parce que c' est intéressant foog aussi tam ñu wax ak waa waa CAF aussi tamit match bi heure bi ñu koy joué c' est pas bon du coup euh, Sadio Mané xamale na carrément loolu moom. baaxul et que war nañ mën a jouer yeneen heures yi foofu lay waxee wax ne aussi tam si terrain bu sec bi xamante ne kenn annoncé ko loolu tam Sénégalais yi jàpp naa gis nañ ko en tout cas Sadio Mané aussi na le temps li nu mel nag boo xoolee euh, taskatu xibaar yu bëri publier nañ ko du pas Sénégal kese doonte mën nga wax ne taskatu xibaar yi nekk fii ci réew mi nañ ko euh, bitim réew tamit xamale nañ ne carrément heure boobu Sénégal di joué mënu si produit yenn football yi lu dul euh, essentiel maanaam am ndam wala jël say point dem toog te gis ngeen ne aussi tamit Covid bi dafa laal bu baax a baax équipe nationale du Sénégal loolu yëpp il faut que ñu teg ko waxtaanee ko parce que aussi tamit boo bëggee Coupe d'Afrique bu ne da ngay jël joueurs yi xamante ne ay de classe mondiale lañ nga def leen heure bu xamante ne spectacle dina mën a génn képp ku gis Coupe d'Afrique dina wax ne ah Coupe d'Afrique kat neex na comme Coupe d'Europe ni mu neexee mais boo bàyyee genre match yi nga bàyyi si naaj bu tàng. même waxuñu rek pour Sénégal ah même pour Guinée pour keneen ak keneen boo bëggee avoir football bu neex a neex bu baax euh, voilà loolu moo tax Sadio def na réaction am et que Sénégalais yu bëri ànd nañu ak moom ci commentaire nag wax leen ma noo leen gisee li Sadio Mané wax Sadio Mané donte wax na ne loolu du excuse du excuse normalement moom jàpp ne du excuse waaye aussi tamit le minimum war nañ ko mën a def maanaam buñ tegee benn match. Euh, ñu bëgg spectacle bëgg football war nañ mën a xoolaat heure bi moo tax ne c'est pas évident jouer treize heures euh, moo tax moom ne loolu it liiwul quoi kenn yemalewul maanaam équipe yi jouer telle heure équipe yi neen jouer telle heure yemalewuñu équipe yi quoi te warul demee noonu noonu moo tax war na ne nee na loolu du excuse waaye ñoom dinañ gën a liggéey ba andi fi ay ndam incha allah donc mbokk yi li moo nekkoon vidéo bi le ci commentaire yi wax leen ma si seen xalaat ak seen gis-gis ma leen di jaajëfal di leen wax ba beneen sur Senfootball TV bu leen fàtte di abonné ak di cliquer ci boobu ngeen di gis vidéo bu ñëw ngeen man ko seetaan jërëjëf ba beneen